moom nag di xam ne rek ne soxna si di wuyu ci turu Aminata Touré ci ab poste boo xam ne daal na ko amal moom Alioune ne ñu soxna soosee daal nit la koo xamante ni eh, jàpp leen rek figure majeure la ci changement yi nga xam ne marqué na suñuy histoire politique fii ci Sénégal bu nu sukkandikoo ci ay kàddu moom Alioune Tine nag mu ne compétence yu bari yi nga xam ne am na ko waaye tamit parcours politique am bu remarquable moom Aminata Touré rek dem na ba wane boppam rek. dëgëral boppam ba nekk sax ci jigéeni politique yi nga xam ne ñoo ëppi kàddu gën a influente file ci dunu Afrique mu ne kon nag figure la bu majeur sax ci changement bi nga xam ne am na ci Sénégal moom Aminata ture kon loole rek la ko mooy mooy ay compétence am yu bari ci domaine yoo xam ne dana ca yëngu ak expérience politique bu mu am te mu teel ko am sax ca ronu ki nga xam ne moo di Mamadou Dia Landing Savané ba ci Marie Angélique ak ñeneen ñoo xam ne rek dana ni moom Aminata Touré kon bu nu sukkandiku rek ci ay kàddum moom Alioune Tine soxna la soo xamante ni su mot a bàyyi xel la ci xam-xam ba nekk ci moom ak expérience ba mu am ak rek baat boo xam ne am na ko file ci Afrique bu nu sukkandikoo ci moom rek ñenn la ci soxna yi nga xam ne Afrique war na leen di namoo ndax nag da di soxna rek waaye terewul rek mu yàgg taxaw di xeex ngir démocratie am expérience ak parcours. mu nekk kàddu yoo xam ne moom mi di Alioune kon daal na ko yëgati rek jëmee ci soxna si li di Aminata Touré nekkoon fi premier ministre mu ñuy xamle rek ne fii ci dënnu Afrique moom bokk na ci jigéen ya nga xamante ni rek ñoo fi ëppi baat ñoo fi gën a influente ci jigéen ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllum politique moom madame Aminata Touré ci fàttali sax moom soxna soosi ci élection présidentielle yu ñu génn te mu doon am niki ngoonu 24 mars 2024. moom moo nekkoon superviseur général bu coalition Diomaye président coalition boobee sax nga xam ne ñoo daal di gagné élection yu mel ci premier tour ba tey jëlee seen président doole sax suñu président askanu Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar fay daal di rek jël lenge niki 2 avril bi nga xam ne moom ñu dëgmal ba tey jëlee mu doon fête rek 64e anniversaire de l' indépendance du Sénégal foofu ci Palais de la République ak benn cérémonie de levée des couleurs.